Kaolack mhm. euh, benn région la bu nga xamante ni euh, boo newee Kaolack ñu ngi xalaat la propreté euh, salubrité bi et tout bi nga xamante ni ki nga xamante ni moo ñëw na gagné li nga xamante ni moo di mairie bi. nga gisee Kaolack am na avancement wala fa mu ne woon ba léegi fa la nekk dem dem dem fële Tamba am na foo xam boo fa rombee rek. yooyu noonu nga xam ne nit ñi tout le temps dañ ko doon ñaawlu muy voilà propriété bi bu dees voilà ci biir Kaolack et tout yooyu noonu changé na bi nga xam ni Serigne Mboup ñëw na. Euh, euh, je dirais que l'expression populaire lors des élections présidentielles ce qu'ils ont manifesté c'est une rupture générale. ça veut dire que lu fa mu nit mën a def au niveau national de même aussi au niveau local particulièrement à Kaolack il demande un changement ce changement là il faut que aussi moo am au niveau de Kaolack effectivement Kaolack a toujours eu confiance euh, personne yoo xam ne nii des ñoo xam ne ni manifesté wu nañ aussi leur savoir-faire sur le côté de l'entrepreneuriat dem même aussi sur le côté intellectuel parce que soo xoolee maires yi ñu fa jot am yëpp ce sont des maires aussi Madiène kii fii aussi un bon mathématicien Serigne Mboup qui un qui un ni ñu koy waxatee sax euh, un bon manager et entrepreneur Mariama Sarr qui est une femme et autre un social mais ba léegi aussi on n'a les attentes euh, seen politique des na par rapport ak les populations de Xar Seen effectivement est-ce que utiliser wu leen aussi ces personnalités là. ça peut être ça peut être mais soo xoolee Kaolack euh, on a des problèmes qui sont qui sont phares et visibles par tout le monde c'est les problèmes d'insalubrité ce sont des problèmes euh, d'emploi c'est encore sont des problèmes d'assainissement. surtout assainissement. ñu dolli ci entre guillemets le développement des activités surtout. la valorisation et la réhabilitation du port de Kaolack affaire yu mel noonu yu mel noonu dañoo soxla un acteur politique un leader qui peut porter ces de son sëñ boobu euh, mu ñëwee on a senti que plus de discours que d'action. wax jee bëri wax ji bëri na wax ji bëri na defante bi bëri na alors que aussi population bi nekkul loolu la ñuy xar si moom. la base de quoi on est parti, lors des élections, on était parti sur la base d'une coalition. Comme on le dit en politique, mhm. euh, il y a un programme te une feuille de route aussi à dérouler. Donc maintenant, quelque, la personne élue, c'est à lui-même de dérouler suivant les directives initialement prévues, c'est-à-dire le programme. Donc à un certain moment, le programme qui a été mis en œuvre de campagne, donc euh, ça n'a pas été déroulé quand même de manière souhaitée, ce qui a fait que nous, on a position et travaille avec la coalition Diomaye dont même la plupart de nos actions eh, yoo xam ne ni ñu ngi bokkoon suñu suñu suñu programme de campagne eh, parce que aussi eh, pour pour, pour rappel aussi nous on était prêts même à aller aux élections présidentielles donc ñoom ñu intégré ko aussi dans le programme de souveraineté qui est projet maintenant donc Serigne Mboup on a senti que lu mu indi ça ne répond pas aux de la population peut-être y a un problème de leadership et y problème aussi de concrétisation parce que ça lu ñu ko jox sax mun na koy mën a xamul sax population lu ñuy xaar si moom. en tant que dëkk Kaolack effectivement. pourtant waa en réalité c'est ça en réalité parce que un maire. voilà ndax ñoom parce que boo boo maanaam action bi doyuñu maanaam wax ji ëpp. man j'ai du tey yéen naka ngeen di mën a àndee koo xam ne peut-être wax kat la mais jëf ji des na quoi. moo tax ma lay laaj ndax yi est utiliser wu leen tam mbooloo bi nga xam ne am na ko ak ay kopparam. bon c'est la la politique on ne peut pas parler de finance parce que nous peut-être à tous les niveaux on peut on peut on a quand même quelque chose qui nous permet d'aller aux élections locales et présidentielles et autres euh, c'est une question de confiance cette confiance la peut être à tout moment aussi euh, trahie c'est ça qu'on a senti et on a pris nos responsabilités par rapport aussi à ça. Euh, oui deuxièmement aussi nu ce qu'on attend au niveau national de même au niveau local c'est l'attente sénégalais yi seen xaar lu ñuy xaar si ñoom ñu ñu ñu matal ko.